wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila llaahi wa rasuulihi foo looy def rek day mel ne yàlla nga koy def ak yónanteem nga xam ne yónante bi day mel na cee bokk booy gàddaay ci yàlla rek xam nga war a nga war a jëm waaye teewut mu ne ak yónante bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga bu ngeen bu leen bu ngeen demee ba xëccoo ci mbir atte ba neen ko dem laaji ko suñ borom waaye ak yónante bi xam loolu lépp day day day dem fa rudduhu ilallahi wa rasuli dégg nga ba ci joxe sax walaw annahum radu ma aatahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sayuutina allahu min fadlihi wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu maanaam foofu xam nga suñu borom mooy joxe waaye yonente bi daa mel day joxe xam nga loolu xorom loolu nag am na leneen lu koy lijjanti loo xam ne dama bañ mu gën a gudd waaye xam nga dafa am lu ñu tuddee borom xam bi dañuy dañuy dañ koy tuddee nidaamu sababiya sababiya lu mat a xam la mooy ci dëgg-dëgg yàlla mooy def lépp waaye dafa am ay ay ay jaaruwaay ci alxuraan dañuy gis suñu borom léeg-léeg mu wax nu ne yàlla mooy rey ku faatu dégg nga wax ne allahu yatawaffa lanfusa xiina mawtiha ku faatu rek yàlla la rey waaye léeg-léeg mu ne qul yatawafaakum malakul mawti malakul mawti moo leen faat nga xam day mel ne yàlla day faat malakul mawt di faat te fekk ñaari faat amul ci xam nga kenn rek mooy faat foofu <laughs> ci dëgg-dëgg yàllaay def mbir mi waaye daa am ay jaaruwaay yoo xam ne boo ko askanee ci jaaruwaay bii taxul nga génn ci diina ji ndax xam nga ne ci dëgg-dëgg kee kee koy def boo ko askanee ku yi itam génn génnoo ci diina ji am na lu gën a loolu lépp fi mu ne suñu borom wax na ci alxuraan ne allahu xaaliqu kulli shay lépp yàlla koy sàkk moo sàkk lépp mooy bind sayidna isa gis nañ ko mu ne anniya axluqu lakum baat bu rëy ngi noonu donte bi isnihi nangam la ca teg waaye anniya axluqu lakum mooy ma ma sàkkal leen bindal leen créer te loolu suñu borom moo ko nettali te waxut ne jafe-jafe la fi mu ne léeg mu ne suñu borom mooy kilifa gi fa laahu huwal wali waaye léeg-léeg mu ne innama waliyukumullaahu wa rasuluhu dugal ci yonente bi léeg mu ne yàlla rek mooy mooy rey mooy dundal inna la naxnu nuxyi wa numiitu waaye léeg nga gis mu ne man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi lardi fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ma annama axya annaasa jamian nga xam day mel ne am na ñeneen ñuy ñuy rayee ka faat loolu nag nidaamu sababi yëpp moo koy takki te mooy ca cosaan yàllaay def lépp waaye mbir mu ne da ko wutal ay jaaruwaay ki sabab mbir moomee boo ko askanee sabab bii te génnewu la ci diine ji boo ko askanee borom sabab yi itam dégg nga génnewu la ci maanaam loolu def nga tawxiid ju leer nañ nun murid yëpp na xam ne ne sëñ bi moom jaamu yàlla way na ni abdun rabbi bañ xamee loolu nag ci lañ mucc ci sirk sirk moom sëñ bi génnan ci bu yàgg yàgg yàgg te te moom jegewunu sëñ bi boo xam ne lam yan xo ni nu mu du noonu la maanaam baydu yu ba xam nga loo xam ne kufrun wala fusuq yooyu moom yàlla musal nañ ci bu baax a baax ak ay ak wala sirk wala caay-caay yooyu yëpp moom noonu mucc nañ ci bu yàgg yàgg <laughs> insha allahu taala donte nag murid léeg nga gis sama waa ji ku ne man koo xam na muy wax maanaam moom da ënt sa sagoom xam nga koo kooku desu ko topp wala koo xam ne mbég mbégte mopp mii yonte bi doon wax ci jaam bi moo ko dab farax al faraxu billahi taala mas naa jëlee waxtaan bu gudd ci jumaay Tuubaa maanaam loolu day am maanaam mbégte mu ëpp ci xol baat boo bëgg a wax xeeb ko lépp tuuti ci yow nga bëgg a wax lu rëy rëy doo am loo wax nga wax baat yoo xam ne moom moom ñëpp danaan yow moom soo ay sawar nga jëm ndax <laughs> li nga wax loolu nag la yonte bi waxoon rek axtaa min bi waaje ne suñu borom yow sama jaam bi man sa yàlla xam nga baat boobu dara gën ko rëy waaye yonte bi da wax ne li tax mu juum mooy mbégte mu ëpp farax boobu nag day dal murid yi ak ñiy jàng ñiy def zikr bu bari loolu nag ku ko musul nga xam doo tudd yàlla wala yazkuruna allaha illa qalilan doo mën a xam lii ni wax <laughs> bisimilah. jërëjëf kii nee na gannaaw bi mu la ñaanalee gudd fan gu ànd ak wér day laaj ana wax ñi nga xam ni ñooy laaj dalilu màggalu Touba ci biir alxuraan ak sunna. màggal Touba màggal Touba kay loolu màggal gan koy màggal loolu mooy dëgg dëgg sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ndax sant yàlla moom doo ma ne bokkul ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam li ma fi wax ci ay nusuus lépp ak i texte yi tegtale sant yàlla loolu ci dalilu màggal lay tàbbi mënoon nañ ko itam ci misaal yonente bi mas naa génn bis ci imaam muslim moo ko nettali fii ci saxiixu muslim nee bi mu génnee <coughs> gis gaa ñi toog di tudd yàlla def ab kuréel dégg nga xaraja ala xalqatin gaa yi dañoo kuréel comme ni ngeen kuréel xasida yi noonu lañ kuréel ne mu ne leen maa aji la sa sakum yéen lu leen tax a kuréel nii ñu ne ko jalas naa nad'u llaha wa nahmaduhu fii dañ fee kuréel dégg nga di sant yàlla ak di ko ñaan ci lim nu xéewale sa jëmm jii yow yonente bi sa alayhi wa sallam ala ma hadana li diinihi wa man na naa bika xéewalu sa jëmm ji ak diine jim nu jox moo tax nu toog fii di sant yàlla yonente bi ne leen maa ajlasakum illa daalik loolu rek moo leen fi tax a toog ñu ne ko waaw loolu de moo leen fi tax a toog sant yàlla daal ci sa jëmm ji munu xéwale ak diine ji nga xam ne moom la moom la ñu gin gindi nee na yonente bi ne leen xam nga da leen a giñloo ndax ndax ndax ci dëgg-dëgg loolu moo leen fi taxal giñ la ma da leen a giñloo yonente bi teg leen leen man li tax ma leen di giñloo du jéegéen dama leen di tuumaal waaye jibril damaa fekk fee ma ne xibaar ma ne sunu borom kat mi ngi yu baahi bikumul malaayika mu ngi puukare ci digg malaayika ya di leen wax ne xool leen sama jaam ñi di leen di puukare puukare mooy mbég suñu borom daa bég ci yéen bay bay wax malaayika yëpp leen yéen nag xool leen nag ñi jaam ñu mel nii xam ngeen ne ak gaa ñu mel nii loolu lañ def Tuubaa dañ fa daje rek di sant yàlla <laughs> ci xéewal yi muy xéewale Sëñ Tuubaa ak jëmmi Sëñ Tuubaa ji jox gi gëm nu ko jox ak diine ju am solo ji nga xam ne moom la jàngal muy diina ju tege ci yërmaande ak jàmm dëppook la fa yónte bi bàyyi woon ëpp di loolu jar na sant sëñ bi loolu benn la ci tegtale ak lan maanaam lañ fay def suñ lu Mbakke da wax ne mooy niñ koy màggale mooy jàng alxuraan tudd yàlla ci xeet tudd yëpp jàng xasiida te xasiida mooy dégg nga ñaan la ak istigfaar ak salaatu al nabi ak tagg yàlla ak tagg yónente bi ak ak sant ko lool lool loolu sëñ fal leen ci lañ koy màggale ak lan ak jokku mbokk ak siyaare gaa yu baax ya ca kaw suuf ak ya ca biir suuf ak yi demee noonu lii nag lenn lu ci nit mën a mën a mën a mën a wedd ci diine amul xam nga loo ci wedd rek mën laa génn yow sa diit ci diine ji loolu nag wutal ko bis mënu ko xaraamal yónente bi masjidu Quba daana def samedi bu ne mu dem fa julli fa ñaar rakka loolu ibnu xajar asqalaani ci fathul baari nee na maanaam wutal gi mu ko wutal bis muy bisu samedi te bu demee di fa def jëf ji loolu tegtal na loolu maanaam jaamu yàlla mënees na ko wutal jamono ak bërëb ak ak waxtu am na yeneen tegtal yu bare bare bare bare yoo xam ne eh, yàlla bu mu nu gën a guddal ci misaal yahuud yi xam nga yónnente bi da leen a fekk Makka Madina al Munawwara ñu am bis boo xam ne dañ ko daa fonk di ko woor yónnente bi laaj leen ñu ne ko bis bii ci la suñu borom labale woon Firawna xettali Muusa ak ak ñoñam ñi di ci sant yàlla nag ci ci xéewal googee mënu xéewale woon ca bis boobee yonente bi na leen fa ana axaqu bi Muusa minkum Muusa ma leen ci gën a yay yonente bi daa tàmbali di woor bis boobu fa saama saamahu wa amara bi siyaami loolu mi ngi ci Buxaari mu di ko woor digal ne ku ko mën ci jullit ñi dee ko def ndax nun noo leen gën a yaay ci Muusa xam nga xéewal ga ci benn jamono la amoon te du at mu ne mu am te cant gi ci yonente bi sant itam at mu ne la koy def te bis yi mu koy def mën naa wuuteeg bis ba mu amee woon ak jamono jooja loolu mooy xéewal bu amee ci jamono itam mooy Sëriñ Tuubaa suñu borom xéewale sëriñ bi mën nañ koy sant at mu ne wutal ko jamono loolu ak yeneen yi demee noonu yëpp mënees na cee mu am na yeneen i mbir. jërëjëf kii nee na ban wuute moo am diggante alhamdu ak wa shukru nee na ndax day gis ci mbindum Sëriñ Tuubaa lu bari ñaari mu boole. ñaari baat yi moom wuute nañ tuuti hamdu ci misaal dee ko wax doomu ci lépp. sukru moom des na ko wax doomu aadama des na ko wax dégg nga euh, maanaam sunu borom sukkur li ci ëpp ci xéewal yi la jëm xamdu nag moo gën a xóot xamdu moom la suñu borom tàmbalee alquran xam nga alhamdu lillahi rabbil alamina moo gën a xóot loolu yi rek moo xaw a wute bi sëñ xaw naa gaa ci bismillah <laughs> kii nee na day laaj ba xam ci islaam ngoroo ak jigéen am na durée bu ko islaam wutal ngoro de amu amut diire waaye nag lu mu gën a gaaw de moo ci gën ndax <laughs> maanaam lii lii gone yu xewal nga xam ne moom ànd bu kenn xamul fu mu jëm xam nga loolu moom <laughs> bari na <laughs> maanaam ngoro xam nga moom li ci ne mooy fii moom li xaw nii léegi kenn xamul lu mu doon nga xam ne moom da ah, dañuy génn yéen fu ngeen génn jëm kenn xamu ko fi ne ngoro moom du dara lu may yow nga nga dem seeti soxna si te boo ko seetee ay waajuram ak ñëpp dañ fay ne nga waxtaan ak ay waajuram ngir ñu may la ko loolu mooy ngoro ngoro mooy dem nga ngay dem seeti ko di ko ñaan yi loolu nag mën ngaa waxtaan ak moom ci boppam waaye fa ngay waxtaan ak moom bu leen wéet bu dee néeg it da ngeen ubbi bunt bi ubbi dindi rido bi ndax wéet la ñu bañ xam nga léegi itam waxtaan woowu jëru muy muy gudd bi seen ngeen di waxtaan loolu xam nga digle wuñ ko waxtaan gis lañ bëgg nga gis ko ba xam ne kii kat dégg nga maanaam bëgg nga ko mu bëgg la te jàpp nga ne man ngeen a ànd may nañ la itam foofu rek la may nga xool xar kanam bi ak loxo yi nii waaye bul xool leneen léegi nag nga dem ñaan ñaan ñaan ay waajuram xam nga loolu jërul mu yàgg xam nga loolu mu mën naa am ci fukki fan daanaka mi nga moo tax amatub diir waaye nag gàttal gi moo ci gën ndax génn bu kenn xamul fu mu jëme loolu xam nga moom moom moom mm-hmm. jërëjëf kii nee na cantaakoon nan la war a mel ab cantaakoon ab cantaakoon waaw cantaakoon mooy li doon waxtaan rek mooy koo xam ni maanaam lay la muy njëkk ràññi ko mooy du doon ab jàmbatkat ab santkat du doon ab du waan du jàmbat lépp lu ñëw rek day gis wetu xéewal gi ci biir mbir moomee ndax mbir lu mu metti metti lu mu jafe-jafe am na wetu xéewal waaw ah, nattu yeeg yëpp rek da ci gis wetu xéewal loolu mooy la ci jitu léegi nag foo ko fekk itam ku bëgg yàlla lay doon koo xam ni jëfam yépp maanaam da ci jéem a sàkku ngërëmul yàlla foo ko fekk itam day yéene ñëpp jàmm day bëgg ñëpp itam ndax day xam ne ñii jaam yàlla lañ li ma ko waxoon léegi xolam kii joxe xéwal yi rek lay lay jan lool loolu mooy ab santkat jërëjëf kii nee na biit bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa indi ci biir bax baxaa la bëgg ku ko ci dimbali mooy kafaytani rayha ba ma tajax jaxaa menal la yaali fa shakartu ba jaxaa ah bay du man bay di ndax ñi mën naa cee dugg <laughs> xam nga bax baxawam daa mel ne xësid ak jihaad la ci géej géej la ko defee lam fa jànkoonteel nag ci ay ci ay nattu loolee ci lay sant suñu borom tubaar ko tax la bu ma juumul sañ sëñ sëñ Maodo jërëjëf kii nee na xasid ak asiinu jamatan wal kaafu wa li raa i wal baa i wa baa u wa <laughs> nee na maanaa boobu ak <laughs> ni ko sëriñ bi tëggee noonu waaw loolu na xeetu sant yi ci lay tab bi suñ tubaab xam nga nu ne sant na la yàlla santkat bi gën a mag moom mooy mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu <laughs> xam nga maanaam xeetu wayin woowu ci ci ci ci funoon dégg nga balaax yi ci la bokk ak muhasinaat yi badiiya yi nga xam ne xeet tëggin la woo xam ne man yaakaar naa la ko jiitu xaw ma amoon na ñu ko ñu ko ñu ko jiitoom déet mooy xaraf yi ci lay wax li mu bëgg a wax as siinu mujabatan mooy siin soo xam dañ ko tomb ci kaw wal kaafu kaafu mooy kaaf nga teg ci raa xam nga loolu mooy sukuru li wal bàyyi raa ak baa mooy rabbu mooy sukkur gi cant gi maa ngi koy maa ngi koy sant ar rabbu muy sunu borom tabaaraka taala <laughs> ar rabbu moom i nag wa huwal baa u war raawu baa ak raa mooy albarru mooy ku baax ki nga xam ne tey mbaax yëpp ci moom la daje moom suñu borom noonu nag la defe xasida ga ba mu jeex xasida gu yéemu te te te te yéeme. <laughs> alhamdulilah jërëjëf. Eh. kii xam ne dañuy ñaan wax ni yal na la sëriñ bi defal nangam ndax loolu mënees na koo wax wala déet. <laughs> waaw loolu mooy li ma doon wax léegi rek xam nga maanaam yow sa xarit bii nii léeg nga ne sëñ Baba ah fan yi dëkk bi naqar na ma 1000 francs de bon nga dimbali ma ci wala 5000 <laughs> dimbali ma ci 5000 wala 1000 francs léeg nga ñaan ko sa baay léeg nga ñaan ko sa yaay. dégg nga ginnaaw sëñ gaar ñaan sañ baaba 1000 francs mu wër la 1000 francs yi moom moom moomu ko yàllaa ko ko wër sëgale ndax alal jëpp yàllaa ko moom sëñ Tuubaa li ko yàlla jox daa bari xéewalam yooyu ko yàlla jox ci lañ koy ñaan mu may nu ci <laughs> xam nga loolu dara nekku ci loolu maanaam dugal maanaam du dugal mukk ci sirk leen nag am na ci ngir ma xam nga boo waxee nii dem rek mën a jàpp ne waaye ci eh, saxiixu saxiixu imam muslim saxiixu imam muslim rabiatu bnu kaab al ab saxaabi la dafa bokkoon ci ñi doon wattu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko garde ba aaya bi wàcc mooy wallahu yaasimuka min annaasi yonente bi yërlu ci ci ci xayma bi ne ko mën ngeen a dem ndax yàlla aar na ma foofee nag rabia yonente bi dana ko nii salni salni mooy riwaayatu abu daawuda salni mooy ñaan ma rabiatu bnu bu ne ko asaluka loolu mi ngi ci mi ngi ci muslim asaluka murafaqataka fil jannati mooy maa ngi lay ñaan ëllëg ca aljana nu bokk fa dëkk maa yow foo nekk ma nekk fa asaluka baat bu rëy nga noonu yonte bi lay waxal yonte bi wax ko ne ko yow ci sirka ne nangam déet dana ko aini ala dalika bi kasrati sujud dimbalee ma ci di naafila naafila gu bari rabia xam na ne yonente bi du yàlla jaamub yàlla la moo tax lu mu mën a wax ci yonte bi may maag nangam yonte bi sax moo ne ko sal nii loolu moo gën a leer moom mooy riwaayatu Abu Daawud sal nii mooy ñaan ma loolu gars duñ ko waxtaane xam naa ne waaye loolu bu buñ ko doon wax lu bari rek ñoo xam ne kon loolu jafe-jafe nekku ci mooy Sëriñ Tuubaa maanaam maanaam ab sabab la ci sabab yi sabab bu dëgër nag te am solo ci sab asbab yi moo tax li nuy sàkku ci moom ak li ñuy def loolu mën noo génn ci ci diina ji donte nag li gën a maanaam murit bu ne moom war nay sàmm Sëriñ Tuubaa daan wax ne moytu leen yàq sama dara ndax ne xam ne ngeen lu ñuy yàqe sama dara mooy nga jóge fi man am lu ñuy xebat ci yow bépp baat boo xam ne boo ko waxee mën naa tax nit xebat sëriñ bi mbaa mu wax ci moom lu mu wërta wax moytul baat booba yow boo nekkee ci ci kii waxal ci lii ñëpp wax rek ñaan ñaan moom yàlla képp lañ koy def ñaanal yàlla léegi asbaab yi nga nga teg ko fi suuf léegi nag boo duggee ca ca barabu Sëriñ Tuubaa ba <laughs> yàgg moom kese nga ne ko sëñ bi maanaam ñaanal ma suñu borom <laughs> xam nga loolu kenn ayewu ko xanaa ñaanal ma suñu borom mu dimbali ma ci nangam nangam loolu boo koy def mu daal la ko jox <laughs> ndax barab boobu rawdatun min riyaadil janna la ah, al qabru imma rawdatun min riyaad aw xufratun min xufarit dërub àjjana la ci dëri àjjana yi àjjana suñu borom waxoon na ne ku fa ne saraax loo ma laaj ma jox la ko lahum ma yashaa'uuna fiiha moo tax foofu moom loo fa laaj yàlla jox la ko bërëbu mooy mooy dër bi dër bu dër bu naat la ci dëri àjjana yi ab dog la ci ci ci àjjana foofu nag boo fa jaaree moo tax bul màggali mukk dem di wër ca mbedd yooyu rek da ngay jëkkee foofee ci sëñ ba siyaar ko dégg nga mi nga ko sëñ jërëjëf <laughs> avant dernière bi kii day laaj xam naa tontu nga ko ba noppi sax mu ne mbooleem xeetu sant yi ban moo ci ëpp doole xeetu cant yi waaw nee na cant xol moo maa ngi doon wax nag maanaam xawaasul xawaas seenu cant cant xol la dernière question bi kii nee na day gis weeru safar bu teroo mm. bay faal yi ni nuy sotti nga xam ni dañuy liggéey di miiras seen bopp di joxe seen alal màggal bu yegsee itam ñu jël seen alal yëpp def ko ci nee na lan mooy melow bay faal ak lan mooy dëgg-dëgg bay faal. bay faal de mooy koo xam daa seey ci bëgg mooy bay koo xam ne moom daa seey ci bëgg maa ne bëggatul leneen <clears throat> lu may yàlla moo tax bay faal nag yombut <laughs> ndax bay mooy dëgg-dëgg ab murit te sëñ bay jaxate wax na ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man am murit laa te doo am murit murit dëgg day dee te déegul asal li dee metti metti jotul ak murit ginnaaw dee moom moo gën a metti ak murit xam nga moo la xamal murit kon moom <laughs> yombut Baay Faal nag ca dëgg-dëgg cosaan la moom mooy anamuk tërbiya ak sëñ Tuubaa googee mu daa tërbiya nga xam ne dañuy dëddu àdduna te te daraja seen daraja dañ koy sippi te waxtu wu ne dañuy nekk ci ndigalul sëriñ bi duñ ko génn mukk dëkk itam ci jaamu yàlla ak tudd ko ak tudd yàlla loolee nag ka ca mooy murid saadex moom boo xam ne xëy na maam Cheikh Ibrahima Fall day jëmm joo xam ne suñu borom a ko terale maanaam melo woowu ñu ñu ko ci moom waaye mboolem ñu sëñ ba njëkkoon a yar ci ci melaw tërbiyee googee ci lañ nekkoon kookee nag mooy koo xam ne mën naa jékki-jékki mboolem li mu am ci kaw suuf mu joxe ko addiye Sëñ Tuubaa dellu ci sero loolu moom ba léegi wax dëgg yàlla suñu mbokki Baay Faal ci la des waaye nag lii nag du Baay Faal kese ñëpp koy def murit yëpp nag ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy kii ci màggal gi màggal gi moom murit yëpp a ci taxaw <laughs> mi ñu ngi sant bu baax ci tawféex bi nga xam ne moom la nu sëriñ bi defal te jariñu nan lool wax dëgg yàlla